El Hadji Ahmed Aidara bismillah Macky Sall day def na juróom-benn at yi góor gi de tribune yéene kaay ne gis nga diggante wàllu njàng meeg mi day xuusma ñàpp biir sax waaw waaw wàllu wér gu yaram gi day lu yàlla xam koñ doy na ma ne la askan wi day waaw ñoom daal ña nga yenul seeni loxo di jooy li doo nga fii pexe waxtu wi nag daal dina jolte ngir ñi ñu daal a liggéeyal nguur gi ah la mu diggee woon nag ñoom daal di koy signé day defu ca ba dara booloo ma ne léegi day waa kër docteur la la ilaha illallah ma ne la ñetti fanu yàlla yoo xam ne day dañuy bank seen loxo martu itali la ilaha illallah parce que ñoom docteur yi day waaw nee nañu fanweeri fan ak benn coor mars kon ci 2014 waaw la ñu signé woon na nguur gi léegi day France dal di xideen defu ci dara bu ñu sukkandikoon nag ci docteur Booli Diop enquête yéene kaay ne te boo sàgganee day waaw xeex bi ah danañu ko gën a taral nag laa la wax martu itali ma ne la ñu feebar day ñoo cay xala dee wal fajiri ne dëgg la ma ne la waa kër docteur day waaw dañoo fa seenee ci réew lu tollu ñetti fanu yàlla nag laa la wax ci biir réew mi yëpp nag ñi nga xam ne nag martu itali ne ma urgence yi eh. seen ñamu bët ñamu bët la ñuy jaglelee kon askan wi la eh, nee ma kay urgence altine tey jii hôpital Aristide Le Dantec kese talaata suba ji day urgence hôpital général bu Grand Yoff àllarba day urgence hôpital Pikine bee loolee lañ naan centralisation ca jamono joo xam ne maanaam kon njàng meeg njàngale maa ngay grève day ak waa kër docteur waaw xale yi ñu ngi continuer di leen sàcc ba léegi ni lee Le Quotidien ne kay ne mesures yi nga ne maanaam kon gouvernement bi mi ngi jël day ngir aar na kon gone yaa yaa jum wala maa jum ma yëkkati ci bus yi kaar yi dootoo ci yéeg eh, Aly Ngouille Ndiaye ne waaw parce que nag mënuñoo jël policier bu ne daal di koy teg ci benn ginnaaw gone wala ci benn ginnaaw njaboot famille ñi ngi sàkku daal ci transporteur yi ñu gën a bàyyi seen xel daal gën a vigilant kon léegi nag papa yeeg yaay yi day dañuy bëgg di gunge seeni doom ñu dem ca l'école ba wala fu ñu mën a dem sax yéeni kaay ma jamal jaa ngi ne ministre de l'intérieur bi day Aly Ngouille Ndiaye daa bëgg kon bépp xale boo xam ne gunge wuñu la dootoo dem école eh, maa la ko wax ah! loolu de Aly Ngouille Ndiaye a doxalee rek ñun mi le daa yaakaar ne kër goo fi dem am na ñoo ab mindaan xale bu jigéen bu mën a kon gungee nag xale ya wala toppatoo too yi Aly Ngouille Ndiaye mii nag neexul ba neexul waaye dafa mel ni day li njaboot yi ko de uh-huh. moom nguy ko réalité wu famille xale yi nga xam ne kon ñoom lay gën a dal mais xale yooyee demaguñu école exemple Serigne Fallou Diop a ngi nii ñaari at dem école waa Aly Ngouille Ndiaye nag yi nga xam ne dañoo mel ni kon Fallou Diop moomee terminé yéene kaay ne juróom benn atu yàlla yi nga xam ne Macky Sall def na ko ci nguur gi day waaw bilan ba day ñii dañ na waaw ñii ne dee Mamadou Diop Decroix bu Asie waaw nee Sénégal daal màggat mu metti la de foo laal day miti nag laa la wax secteur yëpp ay miti fépp ay miti te du waa kër Macky ñoo ne woon kon dinañu béy ceeb ba mu doy sëkk ak barke autosuffisance en waaw mais ba léegi ni leen ñu ngi jëlee ceeb bi ca bitim réew ke di ko indi ci biir réew mi laa la wax xoolal leen ma mbay mi mbay mi moom daa faan moom dee complètement ah. a ngi nii lée waaw la foo laal day miti laa lay wax nii ci biir dëkk bi alalu réew mi moom waxaale wuñu moom les finances publiques la waaw ëpp na ma la bor bi xam ne kon moom la gouvernement Macky Sall bi yor kon ci biir réew intérieur ak ca bitim la ëpp na doy na waar téeméer boo jël ci sénégalais juróom fukk ak juróom benn yëpp bu ñu añee duñu reer Mamadou Diop Decroix ne may wax ñu naan nit ñaa ngi yokk taux de croissance 7,2 pour cent ñu jël yemu ca ndaxte nee njiitu réew mi Macky mi de waaw dama ne la élection waaye mën ta dépasser quarante pour cent laa la wax Mamadou Ndoye bu LD ci Walfadjri ne ma ne la Macky Sall mën ta jàll premier tour mar day taali waaw waaw yaakaar gu tas la ñuy dund ci juróom-benni atu yàlla def na ko daali comme un roi ci kaw opposition bi comme buur laa la wax ñu bëgg a jàll premier tour loolee mënta ne terminé yéene kaay ne juróom-benni atu yàlla yooyu ministre bi ci Sud Quotidien ne man de leer na ma ne premier tour lañ koy fal le ñu ne wii Ousmane Sonko ci yéene kaa gi ne plan Sénégal émergent day waaw programme bu ne moo mën a yóbbu ci kanam ba mu des PSE mënul ne Ousmane ci yéene kaa ga yemu ca ndaxte nee na mësuñoo gis am réew moo xam ne day daa yokk jëm ca kanam teew téeméer boo jël sa juróom-ñett fukk waa ngoom-ngoom yëpp yaa ko jébbal waa bitim réew 80 mi ko ci réew mi premier ministre bi day ci la Soleil yéen i dalal ne xelu ndaw yi dee ne tey bu leen neexee dundee yaakaar Macky Sall bi mu ñëwee ak léegi ñetti téeméeri junni yu lëf la wutal liggéey liggéey ba ca Air Sénégal ke xel tey na la tee mooy yéen ne mbir mi koy doon a saay buñ ne compagnie boobee dana tàmbali ñu daal di usaat dat wax enquête yéen a ne diggante Macky Sall ak bi day maram ak biraan la mënuñoo juboo déedéet professeur Maurice John un aji maka daaw gi nekkate am na ca de mardi itaali lu tolloo juróom benn téeméer ak ñeen fukk ak benn ci ay millions day la ñu ci wàllum aji maka googe moo taxit Mame Mbéri ak intermédiaire bi di Mbagnick Ndiaye waaw tribunal yóbbu nañ leen correctionnel de téeméer ak juróom ci ay uja la ñu dëbb li njaa nax leen laa wax te kat ne ne face kuy naani doom laa wax Gris Bordeaux ne nekkuma kuy tux yamba de te gis ngeen lii ah bu doon raawun la rek bala yegg na teer yàgg na bala gay dee ne ko da ngay caaxaan rek gis nga yow comédien nga yow giri tribune sor ne gars yi keroog am nañ mbetteel de biñ ne nii ba gis Baye Ndiaye ak ñu koo gëj a gis sax ci Balla Gaye ma ne delluwaat na loolee nag day mandargal ne doomu géej waay day booloo nañu de ngir gagné rek <laughs> alaaji béy daal bu àndul ak ay moromi béyam ñu cere ko rek yàpp ko